salaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu waqul jaa alxaq wa zahaqa albaatil inna albaatila kaana zahuqa ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal lu bari waxtaan yi am na solo ñu ngi jaajal jaajëfal sunu mbokk mi Mouhamad Mbay waaw léppam am na solo nag ba mu def sant wi sant wi moom fa tabaarakallah tur wi neex na yëpp am na solo waaye daal leçon bi fa tabaarakallah waaye sant wi moom taxu ko kii lool waaye man de mbirum laylatul qadri moom li ma ci gis mooy li nekk ci ahadis yu wér yi daal nga xam ni dañoo bari sax ahadis yi dañoo bari mënoo li mënoo wax lépp waaye yonent bi sallallahu alayhi wa dafa wax ne ci wàllu laylatul qadr dafa wax ne inni xarajtu li uxbirakum bi laylatil qadr wa innahu talaaxa fulaanun wa fulaan fa rufiat wa asa an yakuna xayran lakum iltamisuha fi sabci wa tisci wal xams yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax bis saxaaba yi ne leen damaa ñëwoon pour wax leen laylatul qadr mooy gan guddi waaye mu tombeek diw ak diw jàppante nee na ba loolee ñu ma xamaloon di laylatul qadr ñu yëkkatiwaat ko maanaam ñu fàtteloo ma ko mu ne xëy na li ñu ma ko fàtteloo xëy na moo gën ci yéen te wax na dëgg ndax léegi dootoo xaar ba ba guddi gi ñëw ngay door a laxasaayu di jaamu sa borom di yokk li nga doon jaamu sa borom waaye da koy dàq ci mboolem guddi guñ ko yaakaare moo tax fàtteloo gi fàtteloo giñ ko ko fàtteloo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na asa an yakuna xayran lakum te asa xëy na la goo xam ne bokkul ak xëy na wolof waaw alquran bu la waxee asa lu lu nar a nekk la waaw bu la waxee asa rek loolu dafa dafa nar a nekk waaw eh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme ci moom la ñu wàccee alquran bu ko na bu ko neexee waxee ci arabiya bi alquran di waxe mu ne asa an yakuna xayran lakum loolu xëy na sax mooy gën ci yéen mu ne léegi iltamisuha fi sabi wa tisi wal xams na ngeen ko làmb na ngeen ko wër moom laylatul qadr ci juróom-ñaar ak ci juróom-ñeent ak ci juróom maanaam ci fukk yu mujj yi ca juróom-ñaareelu guddi ga wala juróom-ñeenteelu guddi ga wala juróomeelu guddi ga mu ne na ngeen ko war foofa kon lan la yonent bi fàtte sallallahu alayhi wa sallam wala lan lañ ko fàtteloo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li ñu ko fàtteloo du fan la laylatul qadr nekk de mais kañ la laylatul qadr lañ ko fàtteeloo kañ la ak fan la du benn ndax bu bu doon kañ la moom dangay xam ne bis la mu jeex ñaar fukki fan ak benn ñaar fukki guddeeg benn wala nga ne ñaar fukki guddeeg ñaar wala nga ne ñaar ñett mu jeex tàkk loolu loolu moom mooy kañ la mais fan la baraxlu la wala koor la wala kori la wala diggi la wala gàmm la wala rakk ji gàmm rakkaat ji gàmm maami koor ndeyi koor ban la ci mu ne ci koor ah fukki fan yi mujj ci koor wër ko ci kay loolu bu la ko yonent bi waxee war ngaa xam ne même ci biir koor gi sax nekkul ci fukki fan yu njëkk yi nekkul ci fukki fan yi ci topp kon ci fukki fan yu mujj yi la bokk ci la nekk ci fukki fan yu mujj yi la nekk loolu lu ñu war a mën a xam la waaw lu ñu war a mën a xam la am na beneen xadis bu nekk ci Buxaari yi Abu Saïd al moo ko nettali mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa dafa def itikaaf ak ñenn ci ay saxaabaam ci weeru koor ngir doon wër laylatul qadr mu itikaaf fukki fan yu mujj yi yu njëkk yi bi fukki fan yi matee Jibril ñëw ne ko li ngay wër mi ngi ci kanam xanaa kon nekkul ci yu njëkk de yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak saxaaba ya li'tikaafaat fukki fan ya ca digg ba li'tikaaf gi jeex jibril ñëwaat ne ko li wër mi ngi ci kanam yonent bi daldi di xutba nag daal di wax ne képp ku bokkoon ak man li'tikaaf gi dellu ndax wan nañ ma laylatul qadr fa inni uriitu laylatal qadr wa inni nussituha wa innaha fi l ashri l awaxir fi witrin mu ne man wan nañ ma laylatul qadr waaye fàtteloo waat nañ ma ko waaye mi ngi ci mi ngi ci fukki fan yu mujj yi ci guddi tool yi loolu leer na di fukki fan yu mujj yi ci guddi yu tool yi moom mooy guddik ñaar fukk ak benn guddik ñaar fukk ak ñett guddik ñaar fukk ak juróom guddik ñaar fukk ak juróom-ñaar guddi ñaar fukk juróom-ñeent ci yii la nekk mu ne gis naa sax yonent bi sallallahu alayhi sallallahu alayhi wa ne gis naa sax ne maa ngi doon sujjóot ci ndox maa ngi doon sujjóot ci ban nee na dellu si waat saxaaba yi bokkoon ak moom li'tikaaf gi ñëpp dellu si waat neen te boobu asamaan saa ngi set wecc nee na lu gàtt gàtt mu dal di xiin dal di taw bi mu tawee jàkk ji fenn Abu Saïd al-Khudri nee na gis naa yonent bi sallallahu alayhi wa bi mu bi ñu jullee bi mu sujjoodee gis naa jeexitalu tooyaayu ban bi taq ci jërëm kon ca at mooma ca weeru koor woowa laylatul qadr ga ci ñaar fukkeelu guddi ak benn la woon léegi lan moo tax ñu wax day tuxu kon mais day tuxu day tuxu moom kenn du ko mën a wax ju dëgër la wax ju dëgër la wax ji ñu wax ne laylatul qadr day wax ju dëgër la mais tuxu gi tuxu gi génnul weeru koor wi weeru koor wi weeru koor wi génnul fukki fan yu mu ji fukki fan yu mujj ji fukki fan génnul guddi yu tool yi lii noonu la demee mais du ci baraxlu du ci korite du feneen mais tuxu gi moom man bokk naa ci ñi nangu ne day tuxu ndax ahadis yi may bëgg a indi ndax boo demee ci muslim boo demee ci muslim ci saxiixu muslim eh, xadis bi nga xam ne ubaydullah ibnu unays moo ko nettali dafa wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa dafa ni eh, wan nañ ma laylatul qadr fàtteloo ma ko eh, waaye gis naa ni guddig laylatul qadr gi ca suba sa man gis naa ne bi may sujjoot ci julli maa ngi sujjoot ci ndox ak ban eh, Ubaydullah ibn Unays nee na ci guddi gi la taw mu taw ci guddi gi ca suba sa nee na bi yonent bi jullee suba ba noppi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñu gis tooyaayu ban bi eh, ta maanaam ban bi ban bu tooy bi taq ci jërëm te nee na loola moo tombe woon ak guddik guddik eh, ñaar fukk ak ñett moo tombe woon ak ñaar fukkeelu guddi ak ñett kon loolu mën nga cee gëme ne day tuxu ndax ñaari xadis yëpp yu wér la ndax balee ci Buxaari yi bi mu tawee jàkka ji seen guddit ñaar fukki fan la woon ak benn bii ci muslim bi mu tawee jàkka ji fenn yonent bi su ci ban bu tooy bi siggi bi mu julli gi jeexee ñu gis jeexitalu euh, euh, ñu gis ban bi takk ci jéem loolu guddik ñaar fukk la ak ñett kon dafay tuxu waaye tuxu yëpp kenn gisagu ko mu tuxu ci ci weneen weer wudul weeru koor te yonent bi itam sallallahu alayhi wa sallam musu koo musu koo wër ci geneen guddi gu nekkul ci weeru koor waaw koo wër geneen guddi gu ci weeru koor doy na sëkk tegtal ci ne ci weeru koor la nekk mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dund na fukki weer ak ñaar fukki weer ak benn yoo xam ne waru ci layla laylatul qadr ba weeru koor teru mu leetikaaf fukk yu njëkk yi ngir wër laylatul qadr fukki fan yu mat jibril e, ñëw ne ko li ngay wër mi ngi ci kanam yonent bi leetikaafaat fukk ya ca topp leetikaaf ga mat jibril ñëw ne li ngay wër ma nga kanam ba noppi ñu wan ko e, e, gan guddi mooy laylatul qadr gi fàtteloo waat ko ko moom fàtte na jëmmi guddi ga gan guddi la waaye fàttewul ni ci fukki fan yu mujj yi la nekk te ci guddi yu tool yi la loolu moom moom leer nañ loolu warul am sax werante moom kay buy am wuute euh, dëgg-dëgg sax warul am wuute ndax moom comme xadis yu wér moom bu xasee ba rot rek moom moom amatul lu ñuy lu ñuy lu ñuy kii lee nekk ci kashful xijaab danaa ci yëg si léegi ci kanam insha allah beneen bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni fekk boobu dafa am ay ay gaay ci saxaaba ñoo xam ne dañoo gént seen gént yi dëppoo ne mi ngi ci euh, guddi euh, ñaar fukkeelu guddi gi ak ak juróom-ñaar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen ara ruyakum qad tawataat أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرى في السبع الأواخر mu ne ku koy ku koy wër gis naa ne seen gént yi dajee na ci dajee na ci euh, juróom-ñaari fan yu mujj yi mu ne ku koy wër nanga ko fa wër te xam nga euh, ruya saaliha yonent bi sallallahu alayhi am na lu mu ci wax waaw juz'un min sittatin wa arbaina juz'an min an-nubuwa moo tax même même nodd mii sax ci gént la ñëwee nodd mi ngay dégg ci gént la ñëwee bu dee ab wahaab bi nag danaa la ah génti kese nangam nangam beneen bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ba tey xadis bi mi ngi ci buxaari mu wax ne taxarraw taxarraw laylatal qadri fil witri min al ashril awaaxiri min ramadan dafa wax ne wër leen laylatul qadr leen ko ci guddi yu tool yi ci fukki fan yu mujj yi waaye min ramadan min ramadan loolu la yonent bi wax ah léegi nag bi ne min ramadan nga koy wër ci chaaban kooku moom kenn mënu koo dégg yonent bi ne min ramadan yow nga koy wër ci Euh, rabiul awal loolu kenn mënu koo dégg yonent bi ne min ramadan nga di ko wër ci dul qicda loolu kenn mënu koo dégg comme yonent bi daal dafa wax ne ci weeru koor la kooku ñun li ñu waroon a wax mooy kon nañ ko wër ci fanweeri fan yëpp wala ñaar fukki fan yeeg juróom-ñeent yëpp ñu ne fukki fan yu njëkk yi moom nekku ci ñu ne kon nañ ko nañ ko dàkk ca yee ca des ci ñaar fukki yi ci des wala fukk ak juróom-ñeent yi ci des ñu ne nekkul ci fukk yi ci digg bi ñu ne kon ci yu mujj yi la bokk te yonent bi nee na mi ngi ci yu mujj yi xam nga loolu dafa leer yonent bi nee na mi ngi ci yu mujj yi warul warul mën a am wuute naan nekkul ci koor geeg nekk mi ngi ci biir koor gi parce que comme yonent bi gëm nañ ko te wax na wax ju wér ne mi ngi ci biir euh, weeru koor wi ci fukki fan yu kooku moom wërta am benn benn jafe-jafe man daal loolu laa loolu laa jàpp léegi nag bu fekkee lii ci lii ci kashful xijaab euh, euh, cheikh Sukari nettali ko loolu damay jàpp ne wérul ba woo ci cheikh Tidiane Cherif radiallahu anhu ndax lii may bëgg a wax ndax lii may bëgg a wax maanaam wax ne laylatul qadr dana génn weeru koor dama wax ne wérul ne mi ngi bawoo ci cheikh Tidiane Cherif radiallahu anhu ndax lii may bëgg a wax xam ngeen ne ahadis yi ma fi tudd yépp muy wax ci laylatul qadr yépp ci buxaari la la nekk ba mu des benn boo xam ne ci muslim la nekk mais yii ma lim yépp ci buxaari laa ko jëlee te xam ngeen ne Cheikh Tidiane Chérif radiallahu anhu demoon na ba li mu gardé woon ci ay kàggul ay téere mooy té maanaam saxiixul buxaari bokk na ci téere yi nga xam moom dese woon na ko nga xam ne téereem la mais yeneen téere yi ci des yépp ci téere ahadis yi amatu ko woon ak yeneen téere yi amatu ko woon lu dul saxiixul buxaari kon saxiixul buxaari am na makaana bu am solo ci Cheikh Tidiane Chérif radiallahu anhu naka la fa ahadis yi yépp di nekkee ba noppi mu wuuteeg ñoom loolu lu lu ma dul mën a nangu lay doon mu wuuteeg ñoom lu ma dul mën a nangu lay doon ñaareel bi mooy déglul ni li Cheikh Sukayri ji wax déglul waxin bi ma def ko ci beneen vocal dafa wax ni wa min fawaidi sayidi al arabi wa min fawaidi sayidi al arabi ibni saaih rahimahu llah aydan ma wajadtuhu fi baad al kananish xam nga kunnaas day am ñu ci def siin su tooy di wax kunnaash am ñuy wax kunnaas fi baadil kanaanish mansuban ilayhi eh, wa min fawaidi sayidi al sayidi al arabi ibni saaih rahimahu llahu aydan ma wajadtuhu fi baadi al kanaanishi kanaanishi mansuban ilayhi annahu qaal laylatu al qadr inda cheikh al akbar muhyi ddin ibni arabi quddisa sirruhu laylatul jumua baada nisfi min laylatil witri wa nazamahu bima maanaahu wa laylatuna algarraau laylatu jumuatin tuwaafika baada nisfi min laylatil witri mu ne bokk na ci njariñ yi ñu jële ci arabi ibnu saaih mooy li ma lim maa wajattuhu li nga xam ne gis naa ko wala am naa ko fii baadil kanaaniish ci ci ci yennati yenn ci kanaanis yi kanaanis mooy kamb wala boog dana firi sax way ndare nit fi muy dajale ay secret loolu moo tudd way ndare mais it mënees na ko wooyee kàngu bokk na ci li mu ne bokk na ci lim li mu li mu gis mu mu bawoo ci e, yennati yennati way ndare yi ñu askanale ko arabi ibnu saaih lii leer na ne cheikh ko wax dé dé bi ñu askanale ko al arabi ibnu saih ne al cheikhul akbar mooy muhyiddin ibnu arabi dafa wax ne laylatul eh, eh, laylatul qadr mooy laylatu jumuatin baada nisfi min laylatil witri mu wax ne wa yaxtamilu an yurida bi dalika fi lchahri alladi kaana fiihi min ramadan min ramadan tilka sana wa illa fa hiya la tu'raf ila axiri kalaamihi mu teg te ne waxat waqad axbara biha déglul waqad axbara biha sayiduna cheikh attijaani radiallahu anhu fi gayri ramadan mun a wax na maanaam xibaare na laylatul qadr ci lu dul weeru koor daal di nettali ba muy julli ci lu tombe julli gu tombe woon ak fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru baraxlu bi mu jullee ba noppi jàng fukki aayatul kursi ba noppi walbatiku wax ne Eh, laylatul qadr eh, tey la lii yëpp mi ngi bokk ci mi ngi bokk ci lii nga xam ne su koy ri nee na fekk naka ci yennati kàggu yi kàggu yi kan waaye yennati kàggu yi ñu askanale ko arabi ibnu sa'id loolu wax jooju jokku jokkuwul ci borom ni ñu ko waxee nii tegtal bu rëy la ci ne lii du waxi cheikh lii du waxi cheikh lii du waxi maanaam fekk gis naa genn këyit gu bawoo ci genn kàggu ñu askanale la ci këyit ga ñu askanale ka eh, arabi ibnu saaih nangam ak nangam nekk ca te nangam joojee ñu ne cheikh a ko wax loolu loolu loolu loolu boo xalaatee rek boo amee boo xalaatee tuur rek xam ne loolu ak ni mu wuuteeg ahadis yu wér yi bawoo ci yonant bi da ngay xam ne ni ñu ko askanalee ci cheikh jubul wérul da xam ne jubul te cheikh sukayri ji itam doguwu ci wax ne cheikh tijaani chérif radiallahu anhu moo wax loolu ànd ak cheikh waxoon ne ida samiatum anni shay'an fa zinuuhu bi misaani shar'i fa ma waafaqa fa xudu wa ma xaalafa fatruku mu ne lu ngeen dégg ñu nettalil ma ko natt leen ko ci nattukaayu sharia su dëppoog sharia jël leen su dëppoowul ak sharia wàcc leen lii nag daa wuuteeg ay ahadis yu wér cëng nekk ci buxaari yi nekk ci muslim nekk ci yeneen téere ahadis yi kon lii lu ñuy wàcc lay doon waaye kenn du ko askanale ci cheikh kon wérul ne cheikh tidiane sharif radiallahu anhu wax na ni laylatul qadr ci euh, euh, day am ci weeru baraxlu wala day am ci weneen weer woo xam ne du weeru koor li yonent bi wax donc loolu la cheikh wax te mooy laylatul qadr ci weeru koor lay nekk allahumma salli ala sayidina muhammadin alfatixi lima uxliqa bila shak walxaatimi lima sabaqa bila rayb naasiri alxaq bilxaq bila nizaa walhaadi ila sirati illahi almustaqimi bila jidal wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi alazim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala almursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk yi maa ngi jégalu ma yokk ci tuuti eh, wax na sax ne moom eh, nu mu tuddati a cheikh Sukayri wax na ni nazmu boobu mu tuddoon léegi te mooy eh, bayt boobu wa laylatuna algarraau laylatu jumuatin tuwaafiika baada nisfi min laylati lwitri mu ne sax gis na gis na nazmu bi mu wax ne wa in wa inna jamian in nasum yowma jumuatin fa fi taasi al ashrina xuz laylata al qadri wa in kaana yowma sabti awalu yowmina wa in kaana yowmu sabti awala yowmina bi haadi wa ashri nactamidhu bila usri wa in kaana sawmu shahri fi ahadin fa xud fa fi saabi al ashrina ma shita fastaqir wa in halla bil isnayni faalam bi annahu yuwaafika naylul majdi fi taasi al achar maanaam mu ne way wa daal la muy wax mooy bu fekkee bisu àjjuma lañ woor laylatul qadr guddig ñaar fukk lay doon bu fekkee samedi lañ woor laylatul qadr guddig e, e, ñaar fukk ak benn lay lay doon bu fekkee e, nuñ koy waxeeti Euh, bisu dimanche lañ woor guddik ñaar fukk ak juróom-ñaar lay doon bu fekkee altine lañ woor guddik fukk ak juróom-ñeent lay doon waaw xam nga ba kii yee jeex daanaka ba nga koy taayee yeggale sax wa fi wa fi yowmi sulaasa yi in bada chahru factamit ala xaamisin ala xaamisin ashrina facmal biha tadri wa fi l arbia in halla yaa man yaruumuha fa duunaka fatlub waslaha saabia al achar ba ba mu jeex mais bi wayi jeexee mu wax ne qaala fi nafxi qultu lastu ala yaqinin min nisbati hada annazm ila alcheikh rahimahu llahu taala fa inna nafsahu ala min hada annafs min hada annazm fa inna nafsahu ala min hada annazm walakinni dakartuhu lima fihi min alfaida wa li anna baad annas qad nasabahu ilayhi fallahu alam bi xaqiqati dalik lii da la Sukayrij wax mu wax ne E, wax na ca an nafxu ne e, wóoruma ne nazmu bi ibnu bi moo ko def ndax ibnu bi ni muy waxee ëpp na nii maanaam uslubam ëpp na nii nafsam ëpp na nii ku mel ne moom ku tol ne moom du waxe du nu mel nii mu ne kon moom doguwul ci na loolu ibnu bi moo ko wax mu ne waaye dama ko indi rek ngir njariñ li ci nekk ak it ne eh, am nañu ko ko askanele wallahu aalamu bi xaqiqati dalik yooyu yëpp waxin boobu yëpp boo ko déggee da gis ne du loo xam ne lu ñuy dogu la fëlee nag ci kaw li tàmbalee ci wa min fawaidi sayidi al arabi ibni saaih soo ko toppee ba ci fi mu def alif ak alkubeer di la wan ne intaha loolu mooy la nga xam ne fekk naka ci eh, benn kunnaas ku naas bu kenn xamul kuy borom wax ja ñu askanale ko euh, secret ba ñu askanale ko euh, al arabiyu bnu saaih mbir mi daal di cay nekk nga xam ne loolu daanaka boo ko toppee rek da nga gis ne lu leerul la waaw lu leerul la kon nanu jàpp ci ahadis yi rot ci saxiixul buxaari rot ci saxiixu muslim rot ci yeneen téere ahadis yi laylatul qadr buñ koy wër ñu wër ko ci fukki guddi yu mujj yi ci guddi yu tool yi ñu wër ko ci